na bëri na foofu moom man. vraiment ah, xam nga noppi moo sax pour di ci di ci waxtaan. Eh, clientèle politique. mais jëwriñ yegg si naa fi ma xam te fi laay duggee ci yenn ci ay question nag sama sama internautes yi ma leen di fàttali rek yéen a ngi ci émission bi. mais waxoo woon ma ne da ngay ubbi kii bi. moom la question direct <laughs> question yu bëri na c'est que yow dañuy waxtaan. ñun ñun ñun defuñu comme émission yoo xam day am protocole dañuy waxtaan. <laughs> ndax ci biir waxtaan bi moo ñu bëri di ci jàng. Ah, bisimilah euh, da ngay jàng may jàng ñiy déglu tamit di jàng. moo tax ñoom tamit ñu ngi joxe seen jàngat. waaw bisimilah moom daf ma def ree. kii def ne jëwriñ Ndiasse te uh-huh. ngaa noppi yow boo moytul Macky Sall xam naa léegi mu jàpp la kii moom loolu la wax moom du question da ay reetaan la ko def moo tax man dama cee yam rek di reetaan mais mais loolu contribution la ma leen di nuyu bu baax a gis naa message yëpp moom mu ngi réer <laughs> Oddo moo ko njëkk a wax ah ñëpp moo koy wax. Ah. comprendre nga mais man man man man nu mu tëddati man bàyyi faalu peuple bi la. Macky Sall amoon na bàyyi faalam la suma mbokk bi. Farba. non. kan la ci ku dëkk Tëngéej nu mu tëddati. Tëngéej kan moo fa dëkk. Maam Góor. ah Maam Góor <laughs> Diassaga. la élection bi. waaw bi la woon comprendre nga. exécutif bi man dama bàyyi ma nekk Baye Fallou peuple. yooyu Baye Fallou peuple. wala waaye Baye Fallou peuple bi. nee na nee na nee euh, na nee na kii nee na. Uh-huh. mu ne mais j'aimerais demander à Diorin. Uh-huh. les sources de la France n'ont jamais confirmé la prière du Cheikh sur l'eau mu ne ndax tooñu ñu sëriñ bi avec des mythes. les sources de la France. waaw nañ wax français yi ñu génneem jën nañ dem jënne ji suñu archives yi moo gën. ñu nekk fii di dingat loo xamante ni ñoom ñu ci dara. moom loolu la la laaj c'est simple ah. pourquoi les sources de la France di génne loo xamante ni ndamal nit ku ñuul la. Mhm. yow sunu école sunu école sunu école yi nga xamante ni mooy centre d'endoctrinement colonial bi sax dañu ñu jàngal nos vraie histoire. Mhm. Hmm? léegi loo bëgg wax foofu. ah loo a <laughs> d' accord moo gis message yenn ci message nag ay ree la may def. Uh-huh. Eh, am na ci yu bëri yoo xam te ni c' pour encourager. mais mais faut dire tamit les messages yi sont négatifs ah que tamit il y a du positif et du négatif. man de wax naa la benn benn bi moom moom boobu nee tëj gi. kan am na ci yoo xam te ne nii moom bëri na euh, day ñëwaat di ñëwaat quoi. ay man ay euh, man kii nee na jëwriñ Ndiassé est ce que doo noppi. temps yi da ngaa bëri li ngay feeñ trop ci média yaa ma laaj bu bu négatif. waa léegi man média yi bu ñu ma woowee nu may def est-ce que damaa ñëw ne la invité ma. man maa la woo. yow yaa man ñun ñaar dañuy def ndaje bu mel nii. waaw. waaw saa su yàlla defee jàmm dañuy toog nii maa ngi yow di wax. léegi man vingt ans man vingt ans maa ngi ci daara di wax ci yàlla. Mhm. te yàlla àdduna ak alaaxira la. Mhm. yàlla àdduna la ak àllaaxira vingt ans maa ngi wax ci yàlla ci maa wax ci àdduna ak àllaaxira réew mi ñoo ko bokk est-ce que yaa ngi dégg ñun bu ñu demee bitim réew bu ñu fa toogee suñu liggéey yëpp mooy lan la ñuy indi Sénégal waaw mais est-ce que warul ci ñun ñu xool Sénégal bu ñu ko bàyyee kan moo ñu koy bayal kan moo ñu koy defaral kenn jëwriñ waaw moo tax am nga message yoo xam te ne nii yu actualité la mooy nee na naka ngay mën a jàngante yeewi askan wi toog ba ñu ne cinq mois six mois moo des ci élection yi mhm. ñu am ñu ciy dàq rawatina des membre fondateurs ba pare ci biir dàq gi ñu ci dégg ay révélation tey Barth wax suba xalifa wax en plus tamit euh, ñu dem ba taxawoo Pastef nekk ay noonu ci gàttal xam nga askan bi Pastef créé wu ko mhm. te euh, maa ngi dégg Barth def na exposé démb am na keneen ku def exposé xaw ma nan jéey la hmm. il fait partie euh, ci membre fondateur yi la pas fondateur de kii mais Cheikh Tidiane Dieye la si je ne me trompe ak euh, Fatou Blondé la waaye ñoom ñu exposé quoi réalité bi dëgg-dëgg ni mu fa demee hmm. est-ce que yaa ngi dégg wax ji hmm. mais ñoom seen euh, seen seen projet initial moo doon àndandoo def euh, municipal def municipal yi. Mm-hmm. àndandoo def parlementaire comprendre nga. Mm-hmm. bu ñu de avait des objectifs parce que bu ñu dominer dans le domaine municipal dominer dans le domaine du parlement. Mm-hmm. xam nga sunu kii boobu Pape Diop ba ko yàq la. nu mu tudd objectif boobu pour am pour am majorité au niveau du parlement. tu vois. donc. Euh, ba ñu demee ba nga xamante ni euh, léegi bu ñu jógee ci loolu ci ñoom liñ bind ah. Mhm. bu ñu jógee ci loolu euh, nañu demandoo présidentiel mais ku ci nekk boo amee ambition nekk président mën nga def sa candidature. Mhm. mais nañ demandoo sur le même kii de Yewwi Askan Wi sur le même idéologie mais ku ci nekk mën ngaa dekk candidat ku bëgg. Mhm. bu au que dem nañ deuxième tour ki génn ci Yewwi Askan Wi ci la la rest ñëpp kooku la ñuy jàpp. Hmm. donc bloc boobu lañ moo doon moo doon projet initial bi. bi moo doon philosophie bi. Hmm. mais bu ñu demee ba nga xamante ni dépassé nañ loolu war a législative yi ak li ci xew yëpp ñu war a persévérer ah bon ah, Macky Sall woote président woote dialogue am ñu jénn dem ci dialogue ba mais ñoo ñu jénn dem ci dialogue ba ñu ñëw violé ko kii bi principe bi. noonu nga ko jàngate non dañoo bind ci seen article 4. boobu ne warul am compromis ak compromission. waaw loolu ñoom ñoo ko bind ci shart bi non. Mhm. mais bu fekkee ni yow point boobu yow da nga koo jalgati daal di dem su boobaa dàq ñu la yow yaa jalgati charte bi yaa génnee sa bopp. c'est naturel xalifa ci gàttal kenn dàq ko moom moo dàq boppam. moo dàq boppam parce que kuréel bi la waxoon jàpp ko moom moo violé loolu. moo violé loolu. kon defe naa ne tontu nga ci laaj bi beneen bi mooy. Uh-huh. Euh, kii dafa laaj mu ne yow nga dund bitim réew. Uh-huh. bon en d'autres termes quoi. moo tax ma la koy jox pour mu gën a flûte. yow da nga uh-huh. dund bitim réew. nga xam bu baax a baax bitim réew. nga xam ne boo fa nekkee en tant que sénégalais des fois bu ñuy wax da ngay am fierté. Euh, nga dégg benn ku mel ni Juan Branco ñëw ci dëkk bi. ñu tëj ko yàggul dara ñu bàyyi ko. mu dem def benn conférence de presse mel ni kuy jébaane réew mi. noppi di sulli ay mboot yi am ci suñu ay kaso rax ci dool yi tamit instant bii dañu internationaliser coowal Ousmane Sonko. Mhm. mu ne qu'est-ce que ça vous fait en tant que un sénégalais bu dëkkoon ca biti réew ñëw fii jamono ji xam la nekk foofu xam ni nekk fii. xam nga suñu dañuy dund instant suñu toll village planétaire quoi. Mhm. àdduna bi yëpp léegi benn dëkk la quoi. mondialisation mondialisation non waaw mondialisation ça c'est de nu mu tuddati de capitalistes. et tu vois parce que euh, neexul nga nekk bitim réew gis que ni euh, les états de droit sont violés. Mm-hmm. les états de droit sont violés. barki démb xoolal li xew France ba ñu reyee benn booy émeute mm-hmm. bi fa am ñaata ñaata ñaata ñaata ñaata trois jours d'affilée yoo xamante ni gars yi tenir en otage dëkk bi taal ñaata oto lañ fa taal mm-hmm. ñaata magasin lañ fa yàq mm-hmm. ñaata kii lañ fa yàq mais Macky dégg Macron da doon toog di ñaan force de l'ordre ngir yàlla bu leen ma indil mbërt waaye def leen lu leen neex waaye bu kenn décédé. bu kenn décédé quoi. bu ñu rey kenn. bu ñu rey kenn mais kooku xoolal en tant que koo xamante ni nee nañ yéeféer la tubaab la mais bakkanu citoyen yi ni fi mu ko jëlee teg ko mu ëpp valeur les biens matériels. Mhm. mais lan moo tax ñun suñu dirigeants yi mënuñu am yëg-yëg boobu. ba manifestation bu ndaw sax ñu ne am na ay meurtre te mu leen ne manifestation yi buñ ko buñ ko légaliser kenn du dee. kenn du damm kenn du damm pour nga di mais arrête. dañu am dañu am ci jàmm. ko yow naka ngay mën a concevoir Sénégalais yi am liberté manifester en Europe te amuñu liberté manifester au niveau du Dakar. au niveau du Sénégal parce yeneen dëkk yi tey jii nii ngi manifester ngir libération Ousmane Sonko. waaw lan moo tax mënuñu ko def fii. fii barki dem moo Ndiaye rek dañ fi tere ay manifestation alors euh, noo koy jàngate kon yow sa réew amul justice kon. damay laajte donc. <laughs> sa réew sa réew sa tu sais que les états de droit quand je te parle de l'état de droit. Mm -hmm. tout dire. Mhm. les états de droit le droit le droit est est quoi tu vois. Mhm. Euh, euh, léegi jëwriñ damay damay ñëw ci benn ndax daanaka léegi tey ñu ñu ñu tëj lii di mm-hmm. euh, jotaay bi mm-hmm. kii dafa laaj-laaj bu am solo boo xam te ne man moom laa la bëggoon dencal fin bi far mu tombé moo tax dama koy defal honneur mm-hmm. si possible sax ma tudd turam euh, daf ma xaw a réer Fallou Diop laataa Fallou Diop di ñëw Fallou mi la jox kafe gi nee na nga nuyu ko bu baax a baax <laughs> Fallou maa ngi baax a baax Fallou Mbaye nuyu bu baax a baax jëwriñ euh. nee na jëwriñ vous militez dans quel parti pour les élections présidentielles wala benn coalition pour les élections présidentielles ou bien l'élection présidentielle de wax waxo maa ngi jéem a xool man nu may bokkee ci présidentielle bi sax quoi parce que dama doon wax ah, député ah déedéet nag a nag jëwriñ da ngaa bëgg a nekk président non même bu fekkee ne nekkuma président sax mais ñi bëgg nekk président damaa bëgg toog ak ñoom pour xam fa la ñuy yóbbu réew mi <laughs> jëwriñ di <laughs> waaw du du du du débat la. waaw débat la de wax sa xalaat la de. bu nekk am nga droit boo bëgg a ah, nekk. président am nga ci plein droit. sa droit la le plus absolu. waaw bu ma même bu fekkee ni duñ ma fal sax mais man ki may war a fal pour mu jiite ma war naa xam fal la may yóbbu. mais kan ngay àndal. man kay xamaguma ko may ana parce kan moo bokk gum Sénégal ci présidentiel. leeragul de. wax ma rek kan moo kan moo bokk. gum kan candidat moom léegi mu yegg ci saare kenn leerul. te kenn leerul ko ci <laughs> est-ce que Sénégal kan mooy dem wax ko dul dem. ci kanam rawuli léegi tey ñu xam ko. ah mais xam nga heure bi waroon na fekk ñuy départager. ka ñu xool kan man pan proposition. de projet mouvance bi sax ba tey jii nii kilifa gi noddagul. waaw déggoo li ma la wax. loolu tamit noo koy jàngate Macky Sall mi toog ba léegi nii waxul kan mooy candidat. waaw loolu tamit ñu ngi koy jàmbat. parce que Macky Sall bon dama lay le président l'honorable président Macky Sall. waaye son excellence son excellence président Macky Sall. ñu ngi lay ñaan nga teel ñu woon sa candidat comme ça ñu saytu ko ba xam lan la ñuy indil. mu jaar ñi daal. mu ah mooy ñun mun mun stratégie la. da nga yaakaar daa am lu mu ci lu ci jublu. non day bañ kuréelam gi tas. non non non instant suñu ni nii dañu bëgg rek saytu ko dañu bëgg saytu kan mooy war a jiite Sénégal quoi parce que euh, bon mais Sénégal depuis l'indépendance ba léegi les les les intellectuels et les et les et les religieux mënuñu ko développer. noonu dëgg la. comprendre nga moo tax paa bi jékki-jékki Touba di laajte indépendance kañ lay jeex. Hmm. indépendance kañ lay jeex. pour moom réew mi amul indépendance. non pour moom ba indépendance mi pauvre. waaw ah, dafa bëgg jeex ndax réew mi. ndax tubaab yi ñëwaat parce que tubaab yi nit ñi doon toppatoo démb ak fi ñuy wóor démb. waaw boobu daal moo baax d' accord moo tax jëwriñ jëwriñ yegg fi ñuy jeexalee émission bi jëwriñ looy looy looy looy ja looy jeexalee mot de la fin wala loo bëgg a loo xam te ni peut être ci biir waxtaan bi jot ñu ko yëkkati daal. waaw ben yeeslu may préparer lancer mouvement bi. gars yi nañu dem ci yeeslu point org lire vision bi mhm. euh, adhéré wu yeeslu point org et euh, bu ko defee euh, ñu préparer ma xool ndax fii ak deux mille vingt quatre dinaa am assez de ñu ma partager sama vision pour ñu accompagner ma assemblée waaye mm. bëgg naa nekk euh, premier Baye Fall bi njëkk a toog biir assemblée. biir assemblée ah pourquoi pas rasta bi njëkk a toog biir bi toog assemblée mais safar gi foo ci toll. bon safar bi tàmbale man fi mu toll ni bis bu nekk invité nañ ma safar benn bërëb. Euh, yow da man ma organiser ko. waaw man aw ma. invité naa la man aw ma xaalis. non xaalis man. <laughs> saa ma bañ a sax balaa muy dugg fee mais mais mais euh,